Zarko ñu gis ni dafa mel tey kon taxawaay ki ngay taxawee ci Modou moom Modou benn la laa mu ji passé gis ngeen bi Modou di bëre fii ngeen ko gis mu taxaw mu mel ne moom mooy bëre mais gor su ne gor la mën a doon ñun ak moom du tey démb la tey boo xoolee gis nga ñëpp a ngi fi ñun Serigne Ndiaye ngi fi Papis a ngi fi Bolle ngi fi mboolem nit yi rek ñun Modou ba ñëpp dafa mel ne tey ñoom ñooy bëre parce que moom la ko moom mooy dundu Baye Fall bi kenn ku ne daf la jox li nga moom loolu la rek. Zarko dafa voyagé ñëw def retour. def macha allah benn escalier boo xam te ne bëreeg ay boy yu fi man noonu la loolu lépp ma victoire loolu lan moo. lépp yàlla la rek fii kenn mënu kenn yàlla mooy dimbala nit yàlla moo tuddoon ne dana am jamono boo xam ne moom du fi ne ab réeram pële la koy reeree ji bitim réew waaye bu appam jotee mu ñibbi siwaat fii toog fi liggéey yàlla defal ko ci ay ndam loolu kese la du dara lu waay def mu sotte yàlla neex fi yàlla rek fi ne wallaahi yàlla moo koy suturaal dañ koy ñaanal yalla yalla may ko ndam ta am nañ ci yàqini bu baax baax ñu ngi ci am yaakar ndax jam bo defé li ngay def ba paré wék lepp ci loxoy yalla da ngay jëlat lepp itam tégar ko ci loxoy yalla ci yalla ngay commencé ci mom ngay yam ndax rabbi samaawaati moy lepp da dégg nga bo wax la ni ci mom nga mëna commencé ci mom nga mëna yam bo boo leneen lu dul rek lolu man mo ci dara. mais bi xaar ci ndam rek moko ci arranger ndam rek waruñ koo xaar ci leneen pour ndam. Zarko yi muy jël rek xale ndaw yi muy jël rek ñu ne sax Zarko booy yi mi tegle di jël lan moo tax jëlu ñeneen ñi tegle booy yi di jël. Zarko li muy def nii mag mu ko ñemee kay essayé ko yi ndaw yi toll seen digg doole ah ngay bëreeg ñom ah mooy wax dëgg yàlla ku ñemee kay jëlal ah moom mu de ñu ngi koy def moom waaw ñu ngi jël xale yi ñu ngi leen di ndàcc ndàccee. Modou bi vrai que dafa dem li nga xam te ni dem ak. mais ñëw na ñëw na ci jàmm ak salaam ñëw na waaw mi ngi ci jàmm salaam ñu koy ñaanal yàlla rek yàlla sàmm ko taxawu ko moom it. ah boo ko xaarul looy xaar jàmm ak rek di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne lii sport la rek di nga làmb ji yàlla noppi na ci démb tey door a ñëw. yàlla mooy maye mooy xool lu ko neex def ko ci jaamam ñun forcé wuñ dara suñu bopp li war a def ci làmb yëpp def nañ amatul lu ñuy prouver ci làmb moom. Balla Gaye ak Tapha dafa taxaw doo gisee. waaw làmb ji neex la mais xam nga làmb ji door a taxaw ak fa tollu loolu instant yi wax ci daanaka yàq la comprendre parce que am na ay làmb yu ko jiitu yu ne ci kanam comprendre nga baax ma wax ndax boo dee xool làmb kii mi ngi fi euh, nu mu tuddati làmb Sa Thiès mi ngi fi. ak yeneen combat yu taxaw xam ne mi ngi bi. mais taxaw mais nan nga gisee ñoom ñaar def nañ première face à face. ñaari mbër yu xiifante lañ kenn ku ne soxla na sa morom kenn ku ne soxla na sa morom dafa làmb jooju da koo yàkkamti woon Balla itam bëgg na ñëw pour wanewaat boppam yaa ngi dégg combat bu métti lay doon incha allahu rabi. dañoo déggoon mu ne nga ni Tapha Tine sa mbokk la mën nañoo xaar ngay ni Tapha Tine ci combat. ba léegi Tapha Tine sama mbokk bawol loolu du ci jóg. kee dañoo bokk Serigne Touba bokk Serigne Saliou yaa ngi dégg lamb moo ñu boole ak liggéey kii sama mbokk bawol bawol la mais loolu yëpp bokkut ak yii quoi est-ce que comprendre bu am noonu. yow naa la seet si na daa am lu ma ci élection yi dafa am loo waxoon daa mais li ma leen waxoon te ngeen ci seen bët toog nga ma ne la damaa njëkkoon a jënd ne leen élection yi ñaar ñii tax nit ñi di du dem élection Sonko du dem Macky Sall du dem kenn ku ne sa mbër ngay indi samp loolu laa leen ñu ne déet mbër yi ma leen waxoon Macky Sall ñëw indi Amadou Ba samp ñee ñëw indi Bassirou Diomaye Faye samp nga ñëwaat seet si ma man la élection yi du am ndax li ma ci gis nii Amadou Ba bu jógut ci boppam affaire yi dana jaxasoo du loolu waxoon. ma seet la. yàlla baax na bal ba nga ñëw. incha allah. booba dangaa siiw bàyyi ndey a sa maa yàgg ci